asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan ci sunu sit bi ñuy wax sunu acte point com ñuy ànd ak yéen ci naafila weeru koor wi ñu di ko jukkee ci téere sëriñ son yi bu mbàkke bi ñuy wax xoratul ay ni ñu dellusiwaat ci guddig ñaar fukkeel ak juróom-ñeent guddig ñaar fukkeel ak juróom moom i tamit la ñu julli woon ca guddi ga ko jiitu moom lañu ciy julliwaat mooy la ñu ci julli woon mooy ñeentu rakka rakka bu nekk ñu jàng ci faatiya benn yoon jàng ci wattiine ak kaafiroona ak lixlaas lu ci nekk juróomi yoon moom la ñuy julliwaat ci guddig ñaar fukkeel ak juróom-ñeent ñu baamtuwaatal leen ko guddig ñaar fukkeel ak juróom-ñeent julli woon ci guddig ñaar fukkeel ak juróom moom la ñu ciy julli da ngay julli ñeent rakka la ciy julli rakka bu nekk ñu jàng ci faatixa benn yoon jàng ci wattiini ak kaafiroona ak lexlaas lu ci nekk juróomi yoon yal na yàlla nangu seeni julli te nangu suñuy julli ak seeni ñaan